un jour un chiffre un jour nag actu Marcel <laughs> maa ngi lay nuyuwaat. <laughs> Marcel tey euh, voilà tey affaire ndox bi la ñuy waxtaanee mm-hmm. ndax gis nañ indi na fi coow lu rëy a rëy. Mm-hmm. Euh, boobu ba léegi ministre bi ñu ko dénk sax euh, Serigne Mbaye Thiam mi ngi woon fële ci assemblée nationale député yi laaj ko ci lu bëri sax nag. Mm-hmm. mu jëm ci indi ay tontu. effectivement yàggul dara noonu Serigne Mbaye Thiam bi mu gannaaw ba mu. jàkkaarloo ak député assemblée nationale yi donc comme ni ko Sud Quotidien waxee. ci euh, unam bu démb ci euh, cherté facture yeeg ak seen ndox bi ak assainissement mhm. mu mel ni daal euh, le mal il est profond hein donc loolu waral Serigne Mbaye Thiam daal di annoncé audit système yeeg yooyu on y reviendra plus en détail donc ñu gis na ne justement ñaxtu population yooyu noonu ci wàllu surtout cherté ci ci ci njëgu facture yi li muy génne temps yi mhm. loolu waral député yi indi waxtaan boobu biir assemblée nationale ki mel ni Pape Sagna Mbaye moom daal di laaj rek ne naka la ñu mën a xalaatee ne nit koo xamante ni da doon fay 6000 francs CFA par mois jékki saa rek facture am yegg ba 80000 francs CFA. la différence elle est énorme euh, député bi di Mariama Mariam Soda Ndiaye moom ne euh, kontaanuñ dara ci euh, ci ci Sen'Eau ci ci ni ñuy doxalee. ndaxte euh, souffrance sénégalais yi mu ngi continuer mu ngi woy ndax euh, cher cherté yooyu les factures njëg bu njëg bu élevé euh, député bii di Mame Diarra Fam moom moom daf daal di adressé wu directement directrice Sen'Eau bi bi nekk nii moom ne ko que daal war ne daal mbir yi doxul mhm. depuis bi fii Sen'Eau nekkee di di gérer mbiru mbiru ndox bi et puis mam Diarra Fam daal di continuer ne moom moom kese dëkk 3000 francs CFA la daan fay ci mbiru facture SDE léegi depuis ba Sen'Eau ñëwee daal moom facture am 17500 la toll. Hmm, xoolal loolu voilà donc. Euh, ah, ah, ginnaaw ginnaaw ñoom député yi sax mais am na plainte. Euh, contre euh, Sen'Eau. voilà c'est ça donc muy ay plante yoo xamante ni consommateurs yi association consommateurs yu yu bëri dañ koy daal di teg ci hmm. ci kanamu service. yi nga xamante ne ñoom ñooy lijjanti loolu ngir rek ñu tijji benn benn l'enquête ngir xool ndax compteur Sen'Eau yooyu c'est fiable ou pas donc ginnaaw loolu ñu def ay test ci laboratoire d'étalonnage bu nekk port autonome de Dakar foofu la ñu defee test yi et puis division métrologie daal di euh, daal di conclure ne euh, que bi euh, nga xamante ne marque bi DL la yooyu baax nañ c'est conforme waaye compteur de la marque Itron yi ñoom ils ne sont pas fiables loolu waral ñi di waa ASCOSEN ak waa SOS consommateur di laaj rek ngir ñu des ñu détruire compteur yooyu ba pare mm. euh, rembourser euh, xaalis euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi impacté ndax mm. facture yooyu noonu voilà ci ci kii kii di jëwriñ gi ñu dënk justement wàllu ndox bi ak assainissement mm-hmm. bi di Serigne bay Thiam moom nekkoon justement ci kanamu député yooyu toujours le 8 décembre ci cadre vote du budget du ministère de l'eau et de l'assainissement euh, moom nag mu ne euh, dañu di laal di def benn demande auprès de la de la SONES donc dañu laal di laaj SONES ngir ñu def audit facturation Sen'Eau yi ndaxte moom nee na Serigne Mbaye Thiam que SONES moom mooy contrôler performance Sen'Eau te recruté na sax benn cabinet indépendant bi nga xamante ne moom mooy nar a def auditu facturation yooyu nee na nag ginnaaw bu naree def euh, ay bu ñu def yooyu les audits dinañ dara def ay études après donc conclusion des travaux du cabinet. Mhm. Euh, comme ni ñu réforme euh, de l'hydraulique euh, dans le monde rural. d'accord mm. alors léegi ñu taxaw tuuti système tarification bi ci ndox mi fii ci Sénégal. voilà système tarification bi moom dañuy xam ne rek lu mensuel chaque fin du mois et mm. bimestriel pour le reste des. des clients euh, voilà voilà mu ngi noonu donc euh, mu li benn politique en tout cas système tarification bi benn politique boo xamante ni état Sénégal daf ko gëstu depuis atum 1996 euh, donc ngir fexe rek ba améliorer gestion ndox boobu ci ci ci askan bi et ñu daal di adopté benn tarification progressive ci ndox bi nga xamante ni day dépendre ci volume mhm. bi ñu daal di consommer par exemple abonnés domestiques yi ñoom système de tarification ñetti tranche la ñoo xamante ne tranche sociale la jusqu'à 20 mètres cubes de consommation maanaam ay 1500 3000 de francs CFA de de facture les jours en général. du du cher noonu. Mhm. tranche pleine ou normalement bu dépassé justement lu euh, lu lu toll ci 20 mètres cubes la ñuy nar a yokk loolu et puis tranche dissuasive moom boo dépassé justement tranche pleine boobu noonu euh, noonu la ñuy euh, évaluer tarification bi. Mhm. donc ñu xool rek coupure. li nga xamante ne moom mooy peut-être l'une des principales l'un des principaux problèmes des populations ci wàllu ndox. ci ci Dakar mooy coupure ndox yi. Euh, li li autorités yi ñoom di daal di euh, joxe comme explication rek mooy que problème conjoncturel ak structurel euh, fourniture d'eau beeg Dakar ci ci biir Dakar ak ci région yi moom moo am ba pare bu ñu xoolee ba xool usine bu nekk KMS 3 et bu nekk ñit Euh, ñoom euh, foofu la problème yu amee ndaxte foofu la ñuy def ay ay ay raccords ay branchements et puis euh, ñuy fàttali que justement canalisation boo xamante ni ñiit lay jógee di dem di yóbbu ndox bi ba lac de Guiers bi nga xamante ni de lac de Guiers day ñëw ba Dakar. Mm-hmm. eh bien kii di député Abdoul Aziz Diop moom nee na. Euh, foofu tëj nit euh, usine bi fa nekk moom ci boppam sax population yi nekk aux alentours ñoom amuñu fa ndox. doy na doy na waar ni ñu ko waxee les cordonniers sont <laughs> voilà donc euh, ñu gëstu itam benn projet boo xamante ne. Mhm. SONES moom moo koy daal di def mu di. projet de dessalement de l'eau de mer à Dakar donc fexe rek ba génne xorom ngi ci nekk pour mën a fexe ba mu nekk eau potable mhm. mu nekk benn unité dessalement boo xamante ne mamel lay nar a nekk capacité bi cinquante mètres cinquante mille mètres cubes jour extensible ba cent mille mètres cubes par jour donc lay lay nar a dépasse donc le double et puis le coût de de l'investissement 135 milliards de francs CFA euh, lan moo ko tax a jóg muy benn renouvellement justement de kilomètres réseau ngir fexe ba euh, ndox bi euh, ñu ñu améliorer réseau ndox boobu noonu mm-hmm. nga xamante ne sonal na population Dakar yi mel ni Almadies Parcelles Assainies Patte d'Oie Grand Yoff Grand Dakar Mermoz Sacré-Cœur HLM Plateau Médina bëri na donc bu ñu seete ba set projet boobu bu ñu ci yeggee rek dina fexe ba économiser mhm. euh, lu toll ci euh, en tout cas soit 45 millions de litres maanaam 45 000 mètres cubes euh, par jour donc lay nar a fexe ba ñu ba ñu ba ñu économiser ko bu mhm. projet boobu noonu tax doxee voilà mais ñu gis na ne ay ONG ak i membre de la société civile comme waa Y en a marre ñoom boole neen affaire boobu noonu parce que neneen daf di benn projet boo xamante ne daal dafa am impact ci wàllu environnement bi mhm. donc loolu waral ñoom daal ñaawlu leen ko d'accord instant yi ni seen woo la ñuy wax mais avant am na yeneen société yoo xam ne ñoom ñoo yoroon ndox mi fii ci Sénégal. à fait soxna naata ñu gis na ne euh, ki fi njëkk mooy compagnie générale des eaux du Sénégal euh, mi nekk filiale euh, groupe CGE France ñoom nag ginnaaw indépendance lañ leen fi tegoon 1960 ba 1971 lu ëpp fukki at nekk nañ ko fi et di rek nationaliser service koy joxaat le tout cas sénégalais et puis boo loolu waral année ñu daal di créer société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal on différence entre et l'autre mm -hmm. Euh, année 90 justement ñu daal di def benn réforme secteur de l'eau ba après SONES euh, moom nekk des eaux du Sénégal tout simplement pas d'exploitation moom bi nga xamante ne société patrimoine la euh, chargée de la gestion du la maîtrise d'ouvrage des travaux neufs et de renouvellement

ndax jamono jooju moom moo fi nekkoon mhm. euh, ministre de de l'hydraulique mu am ay coow yu ci mhm. jógoon ci mhm. wàllu koppar ñu daal di wax ne sax groupe Suez mi nga xamante ne moom euh, en tout cas filiale euh, Sen'Eau filiale la ci groupe Suez bu nekk France dañ ko daal di daal jox waaw daal di neexal ngir mën a fexe ba ñoom ñu daal di gagné marché bi. d'accord mm. euh, alors euh, euh, merci Marcel nga desandi fii tuuti. Chérif ñu ngi wax jamono ji coow seen o bi bëri na mais coow li ni ko Marcel junjee yàgg na avant Sen'Eau di fi ñëw parce que ñu bëri li leen jaaxal mooy SDE mi fi nekkoon amoon na ay jafe-jafe naam mais prix yi mu doon proposé au mètre cube daanaka moo gënoon a néew bu ma juumul Veolia la woon ak seen Sen'Eau muy Suez mi ak SDE waaye dafa mel ni ñoom ñoo gënoon néewle waa juróon sax ay dem euh, di kalaame ji ARMP ba ñu suspendre contrat yi euh, ba contrat bi ba finalement ñu mujjee leen koo jox. Euh, ni nga ko waxee naata noonu la CNO moom daanaka le premier janvier bi lay fi am deux ans mais deux ans de galère de gestion catastrophique Euh, du secteur de l'hydraulique urbaine fii ci Sénégal la nemmeeku wax ngeen ko sànq déjà facture yi cher na mais danoo gisul sax ndox. Mhm. doo am ndox ba pare bu weer wi dee nga gis facture ni muy yokkoo muy loo xamante ni. te ndox bu ñëwee leen bu ubbee seen robinet yi daanaka ndoxam foos la ñuy gis. Mhm. que dafa dafa garaaw te dépp ki demee moom Serigne Mbacké Mbaye Thiam gis nañ taxawaay bi nga xamante taxaw nañ ko muy loo xamante ni doy na waar parce que tamit euh, boole ci aussi euh, duñ wax di ñu dëgg moo ñoom waa CNO parce que boo xoolee bu paan waree am dinañ génn communiqué na dinañ paan délai yi ni joxee duñ ne ndox dina ñëwaat muy loo xam manque de respect total vis-à-vis des consommateurs alors que comme vous l'avez dit amoon na benn société bu fi nekkoon muy USDE mais liñ gis mooy SDE euh, mais ñoo gën sax waa bi nga xamante ne ñoom ñoo leen fi remplacé mm-hmm. et moom ngeen gis ni gis ci euh, ayam bi mu nekkee ministre de l'eau ci lañ indi changé li nga xamante mooy contrat d'affermage bi jox ko waa CNO mais mooy pour des questions de transparence sax waroon nañu publier contrat yi ñu xool dans quelles conditions lañu joxee waa CNO li nga xamante kon mooy contrat d'affermage pour remplacer fi SDE parce que gis nañu ne ay doomu Sénégal yu ci nekkoon doon fi xeex malheureusement ñu néewal leen doole que ça soit les syndicats ba ci patronat bi ndem si yàlla Mansour Kama moom it gis nga ko ay jamono nekkoon fi sax euh, président conseil d'administration bu SDE